الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سبدة وكعبة الأرواح والأبدان سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحابته الأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew fu ngeen man di nekk ak nu ngeen man di nekkee kenn ku ci nekk ña koy fekk fa mu nekk di ko jox loxob maanaa di ko gunge nuyoo bi yàlla jox ñu muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi di fas yéene ànd ak yéen ci yóbbulab jullit ci tukki mu rëy mii ñi dëgmal muy àllaaxira mu sori laaj yóbbal te la fa gën ji yóbbal yàlla wax nañu ko muy ragal yàlla ku la nag nar a exeme wax la lim la war a laaj kooku yéene na la nga at mi te bu yowmal xiyaamee yàlla rekk moo ñuy exeme la mu ñuy laaj mooy ragal yàlla ta wax nañu ko fi ñeek ñi ak mom kon ku yéene na lool ñi at mi lim ñu ko yéene nak na fekk ñun ñi yéene ko ci suñu bop kenn ku nekk timit yéene ko morom lolo waral mu wax ci alquran ne na ngeen yóbbalu ci seen tukki mi li ci gën ci yobbal ci seen tukki mi nak moy ragal yalla ku ko xam ñako dara ku ko ñàkk dara motax mu ne wa tazawwadu fa ina khayra zadi taqwa mom ragal yalla mom moy gën ji day ku ko xas waddoo lo ñak ñak yere ku waddu nga ku ko xass ñak lo bëri bëri yere ku rafle nga ndax ak kilifa gu ñepp yaakaar bu taxawé mbolo wër ko mu wax wax gudul deug jo xamé ni ñeme yalla moko ñuluk wala muy garal wala muy xaste wala muy rambaaje wala muy jaxase kooku lu yëreem ya beese beese màgget na lu yëree ya rafet rafet ràpp na ndax nit ki saa yu ñeme yàlla rek dafa mujj rafle kon gën ji yi mooy ragal yàlla moo tax alquran ne wa libaasu taqwa dhalika xayru ragal yàlla mooy li gën ci koddaay moom ragal yàlla moomu xeeti jaamu yàlla yi ñu yàlla sant yépp la ca yàlla namm mooy ñu def ko ci ragal yàlla mbaa ñu def ko jëlee ci ragal yàlla moo xam ca woor ya la moo xam ci aj yaag hàddi yooyu ñuy rey moo xam ca tabaski ya ca ña ajut moo taxoon ña ajugut ba ñuy rendi tabaski ya deret ja bëri lool ñay xaj di rey seen gàtt ya ci hàddi ya deret ja bëri lool yàlla ne deret jii li muy bëri bëri dara intéressé wut ci li ma ci intéressé te mooy lii si ci man mooy la ngeen ca def ragal yàlla lal ko moo tax mu ne lan yanaala llaaha laxuumuha wala dimaawuha walakin yanaaluhu taqwa minkum kon looy waay di def te fekk ragal yàlla lalut ko rek xamul njariñ koor gi mu sant ñu ba ñu wooree xiif booleeg mar booleeg wéet ñàkk ku ñu wéttali ko mënuñu dara intéressé wu ci li ma ci intéressé daal mooy ngeen jëlee ci ragal yàlla bu ngeen dudd ci biir koor gi dund ko ci biti koor gi moo taxoon ba mu ne woon kutiba alaykum siyam ne kama kutiba ala alladina min qablikum ñu ne ko lu tax mu ne laallakum tattaqu ne farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataalee woon ci xeet ya leen jiitu woon ndax bu ne woon farataal naa ko ci yéen rek noppi danañ taxaw ne ko yàlla diis na di ñun rek mu ne déedéet nekk na farata ci ñi leen jiitu woon ñu ne ko coono nag ak tiis lu mu rëy rëy bu ko ñépp xenoo rek mu xoyof mu ne nag lu tax mu faratal ko ci yéen faratal ko ci ñeneen jiitu woon mooy ngeen jëlee ci ragal yàlla ndax la àlla xarfu tërëjin la mais bu dee yàlla ak bopp ma wax la àlla xarfu taxqiiq la mooy ne su ngeen ko defee ni ma ko santaanee dangeen ngeen ci jëlee ragal yàlla pire te buñ ko ci jëlee rek dañ texee àdduna texe àllaaxira nga gis tamit kon xeeti mbooleem lu ñu yàllay sant rek ragal yàlla mooy nekk hëdëf ba moom ragal yàlla nag baat bu sakkan la mën ngaa wax ne daal araaba sakkan rek arab sakkanam yaa ngi koy xamee ci góor ga yóbbu woon doom ja keer mu jàngi indi doctorat ñit ci jamonooy newet bàyyi ji ne ko ah, réew mi dugul réewam toog jëlal jumtukaay yi ñu dem ca tool ya te xam nga li yàlla bind étudiants yi ñoo ci gën a bañ tàng moo tax sax étudiant ak ustaas ak muus sorewuñ lu sedd ak fu sedd rek lañ bëgg góor ga doom ja ca waar wa ba une heure jot mu ñak toy xet ben sam ñew ba ne kay fa ne arab de man bëgg na ko lool waaye xawma ci dar waaye sama dom ji comme xamna doctorat xam kay fa xaaluka li ne dom kay fa xaaluka mooy lan mu ne ko moy bàyyi soxor ya néeg ya ñak yërmande ya réere ak njureel ya ma jang lo joxon jang na xamna indi diplôme suma rak yépp ak suma mag am nañ jabar ami doom am métier mu duhut mbay nga di ma bayloo ba ma ñaq tooy xepp ànd ak sonn ci tënk bu gàtt daal li ineer jot ngir ñu war a wàcc lii mooy kay faxalu ka ah baa ji yëngal booba ne ko ah doom arab sakkan na di araaba sakkanam wala yow yaa mën a sakkanal waaye boo ko seetee seetantal ko araaba sakkan rek parce que kay faxalu ko mooy luy sa mbir mbiram ñàkk doom mang ca ñàkk jabaran ca ñàkk métier mu duhut mbaya nga ca wax deug yalla comme ña ngay bay ba une heure jot bëgg bayam wacce ko timit ma nga ca waye kay xala ko jooju li muy sakkan sakkan taqwa ko gëna a sakkan parce que taqwa ak khawf duñ ben taqwa moomu di ragal yalla yalla miñ la ragal Lo dañ la wax ne la nang ko holu yalla miñ la ragal lo dañ la wax nang ko sop yalla miñ la ragal lo dañ la wax de ko ñaan yalla miñ la ragal lo dañ la wax de ko sant yalla miñ la ragal lo dañ la wax de ko top képp koo ragal ku dul yàlla doo ko sopp koo ragal ku dul yàlla doo ko topp koo ragal ku dul yàlla doo ko hóolu koo ragal ku dul yàlla doo ko bëgg kon nag taqawaa da ngay ragal yàlla ànd ak yooyu yépp tamit nga ëmbaale ko kon baat bu sakkan la moom taqawaa moomu nag sakkanee noonu ñetti bénéfice mi ngi ci bi ci njëkk li ñuy tuddee sécurité ragal yàlla rek moo ko mën a joxe ndax nit ki saa yu ragalee yàlla ragal yàlla ga moo koy contrôler ba du sàcc du fen du fëkkaxal li jàmbur du jëw du xaste du njaalo du rambaaj du dog ak mbokkam du gis boppam fa fu kawe gis ay moromam fu suufe du tere nit ñi tamit di leen dimbandikoo te du leen dimbali su boobaa ragal yàlla gaay dox ci diggante moom ak diggante yépp ba du ko def kon bu ragal yàlla xamoon sàcc du xam agressé du xam fen du xam jëw du xam xaste du xam rambaaj du xam ndax ragal yàlla gaay dox suñu digganteeg yii léegi nag ñeme yàlla gi yóbboon nañu ñu yore seeni magasin di jaay ñu yore seeni cantine ñii yore lañ yor di ko jaay léegi danañu tëjee ñetti xomb te terewut ña ngi koy sàcc ngir ñeme yàlla wàcc dana jot ñu tëjee xomb yañ am muy benn ñu tëjee xaat ñaareeli xomb yi ci ñaan dog yañ am yaakaar ne dana musuleet ci sàcc ñetteel ba ñu tëjee beneen xomb ci ut ay gardien yu ñuy fay ñi fay fanaan te terewut nit ñaa ngi ñeme yàlla bay dagg ñetti xomb yi di sàcc seeni marchandise bu ragal yàlla amoon cahier de charge du ko jarati kenn ku ci nekk da nga respecté waxtu wi ngay war a xëy ak waxtu wi ngay war a wàcc waaye doo ñeme mukk xëy te fekk waxtu xëy passé na doo ñeme mukk wàcc te fekk waxtu wàcc jotagut ndax da ngay yëg ne su ñu ma fayee ma dundee ko ñàkk jàmbur laa lekk wala fay nañ ma lu ma ñàkk su boba nak ragal yalla gay dox ci sa kanam dox ci sa digganteeg yoy yep nit ki nak loko sante mu jiite ko ma nga sante ko ko nit jiite ko ca ca ragal yalla amut ca faaw mu def ca lu ca bokut mba mu ca lu ca bok mbir mu mu di ca lu ca bokut mba ga ca lu ca bok rek mu mujj kon liñu tuddé sécurité ragal yalla rek moko mëna joxé fu sécurité am nga am fa bu nga amé lañ doon joxoon ñi yegg ca ñaarel bi li nga xamee ne ni mooy ragal yàlla bu ko nit ki xasee def lu yàlla bindati dafay ragal ki ragal yàlla lu tax fa ragal ku raglu ku ragal ku raglu lu raglooti ragal la waaye saa yoo ñemee ku raglu lépp lu raglooti dafa lay ñeme ci ñeme gi nga ñeme ku raglu gi kon bu ñu ragaloon yàlla mu dëgg ci suñuy xol gaynde yi ragal ñu bukki yi ragal ñu till yi ragal ñu jaan yeeg jiit yéeg ya ca aju yépp amatul lu ñu ciy ñeme ba di ñuy lor yonent yalla muhammad ko wax ci sahabiyu ben sahabi yu bu ñu tuddee saadu tukki ben gaynde traverser ko ci digg yoon wa mu wacc gelem gam waron japp ci noppab gaynde ko toxal ko yoon wa warat ci gelem ga ne ni la mën a yonent muhammad wax ne ku ragal yalla lu yalla bi ragal la te man ragal na yalla kon gaynde gi warna ma ragal khadimur rasul jël hadith ba way ko def ko li ñu tuddee ci balaa mu ne wa xaytu maa taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfika hoo kullul ahad mu ne soo ragalee yàlla ragal gi nga ragal yàlla lu raglooti ci la lay ragal ñi déggee ci ne soo ñemee yàlla ñeme gi nga ñemee yàlla lépp lu raglu ci la lay ñeme ba tey xoqbatun mu naafia ba muy sanc xuur wee ñi tuddee xayrawaan ca marok ndeysaanam fekk na fa ay bukki fekk fa ay gaynde fekk fa ay jiit waaye ku ragaloon yàlla la mu àddune ne yéen ñi raglu te nekk ci xuur wi damaa bëgg ngeen génn abal ma xuur wi ba mu àddoo kàddu googa lépp lu nekkoon ci xuur wa di lu raglu gaynde yaag bukki yaag ya ca aju yépp génn ba xattaa jaan yaag jiit yi sax dañoo ngànk seen doom ya génnee leen xuur wa kon nit bu ragalee yàlla rek lépp lu raglooti fa koy ragal lu ko war loo xam ne duhut lu raglu nag dafa koy wekk ku dund ci diggante lu la ragal ak lu la wekk nga dund ci ñoŋe ah yow kii dafa laa ragal kii wekk la nga nekk ci seen diggante faw nga ñoŋe ñetteelu bénéfice bi ragal yàlla caabi ñaari ngémmañ la dana tijji dana tëj dana tijji xéewal yi nga bëgg mu tijjeeku yépp dana tëj musiba yi nga bëgg mu tëju yépp dana tijji xéewalu àdduna dana tijji xéewalu barsax dana tijji xéewalu xalaaxira waaye dana tëj musibay àdduna musibay barsax musibay xalaaxira aaya la par aaya ci alquran xéewalu àdduna dafa sakkan waaye bi ci jiitu ci xéewalu àdduna yi mooy xam-xam laajoon nañ ko imaamu Aliyu xam-xam ak am-am lu ci gën mu ne ah xam-xam a gën ndax xam-xam soo ko amee moo lay wattu te noo ko joxee mu gën di dolleeku am-am soo ko amee yaa koy wattu te noo ko joxee mu gën di wàññi loolu ñaam xalal xam nañ ci léeg-léeg ji rey leen. yak sen alal leg leg ñi dabi sen alal ba sen bakkan des ca parce que alal ak bakkan séex lañ leg leg bakkan dabi halal ba des ca leg leg alal ñew sowe bakkan mom mucci bakkan mucci alal dem legi nak bañ ko laaje ali mu ne xam xama gën dundam ba dundam jeex bu daan wax mosta wax kulay jangal me day wax kulay kulay jangé dafa wax ne ki lay jàngal dafa lay jànge ndax ci biir jàngal gi mu lay jàngal dana ca jéggee ay masala moo waral xam-xam noo ko gën di jàngalee muy gën di dolleeku ñaareel bi benn waay ñëwoon na ci benn xakim ne ko xam-xam ak am-am lu ci gën mu ne ko bindal ma mu bind xam-xam muy ñaari xaaf ak ñaari miim nekk deux cent quatre-vingts parce que xaaf gu ne téeméer la miim gu ne quarante la. mu ne ko bindal ma xam-xam mu bind xam-xam muy ñaari xàllonko ak ñaari mim matum sax téeméer fa mu ne ko xëppee na ko tomb bi nim ko xëppee ni la ko kon xam-xam mo gën am-am donte la jamono yàqu na ba jamono ji ko wax xam-xam ak am-am lu ci gën ñu ne am-am xam-xam nak ñaari xaj la am na lu ñuy tuddé xam-xam bi yër am lu ñuy tuddé xam-xam bi yëg xam-xam bi yër dara du ko joxe lu ragal yalla saa yoo ragale yàlla yàlla lay xamalal boppam ku yàlla xamal doo juum doo jaawale doo janax moo tax mu wax ci alquran ne wattaqullaha wa yuallimukumullah ragaleen yàlla yàlla xamal leen ku yàlla xamal dootoo juum doo jaawale doo janaxe moo taxoon mag ñu baax ñi fi nekkoon li ñu xam lépp jànguñ ko ñun nag ñu jàng lépp xamuñ ko lu tax ragal yàlla ga nekkoon ca ñoom moo nekkut ci ñun seetal ku mel ni Seydi Ahmed Tidiane juróomi téere la jàng te lépp jeexut xoolal ma tey xam-xam bi ko yàlla jox xajut ci kayit yi xajut ci daxa yi xajut ci garab yi xajut ci dara xam-xam yoo xam ne jéggi na dayoo ci valeur kenn mënu koo xoolal tey ku mel ni xaadimu rasul téere yi ñu fi taalif ci ay xasaayit yooye téere ak yi xam-xam loola lépp xaadimu rasul jàngut ko fa am lu mu jàng ragal yàlla nga xamal ko loo xam ne nii jàngut ko xoolal tey ku mel ni Seydil Hadji malik ba muy jàng ca daara ja ki ko yàlla may fathul akbar mu taalif nuunu yàmba wan ko sëñ daara ba ku ñuy jàngal ngay taalif téere ku la jàngal ku la mën a jàngale ci xoolal tey ku mel ni Alaaji Abdoulaye Niass nga xam ne dal na Cheikh Khalil jeexut baabul jamee ci la toll jeexut xoolal ma tey li ko yàlla jox ci xam-xam ba mu firee alquran téeméeri yoon ak fukk ak ñeent ak tey ay maanaa yam ca génnee xoolal ay ahkaam yam ca ak tey mbooleem alquran la muy yaatu yaatu alquran aaya bu ci nekk mokkal na koog ak jat xam jat ga la muy jare nag ren la wala xob wala la ci aju moo tax benn waaye ne ma sëñ bi loo wax ci xarfu fuufa yi sëñ aadi ma ne ko xarfu fuufa yi di ren yi ku ko fi bàyyi dee ci fuufa ku bàyyi xarfu fuufa dee ci fuufa moom lislaam loo cay def rek jiital ca yàlla boo ko ca defee rek jiital ca yàlla rek yàlla nangu xoolal tey doomam ju tedd ji maam xalifa ñes boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi mi nga xam ne dund na ba génn àdduna mosta dal téere bu mu jeexal te daana wax ne kuy def téere boo dal feeg jeexut doo ko bàyyi doo bëri xam-xam ngaa war a dalab téere balaa jeex yàlla xamal la ko nga dalaat beneen xoolal ma tey xam-xamam yi kenn xamut ni mu ba daana wax ne suma xam-xam yi bu ñu ko safoon batu mu suux suñ ko safoon gëlëm mu goor suñ ko sëfoon montagne yi danañu mujj mokk ruub ba tolloog suuf kon kooku xam-xamam kenn xamut ni xam-xam ya toll kon loolu lépp mi ngi ko jëlee ci ragal yàlla xoolal ku mel ni alxaaji Amadou Dem nga xam ne sarxana alquran te baabu maarifati la toll xoolal tey ku mel ni seex al bàyyi Baay Ñas li ko yàlla jox ci xam-xam te yooyu yépp mi ngi ko jëlee ci ragal yàlla ba ca des nag mooy xam-xamab yëg ci la yàlla yëgal la loo yëgutoon kooku tamit ragal yàlla rek ko joxe képp ko ragal yàlla yàlla yëgal la loo yëgutoon boo fi bàyyi ko naa may dem ci benn waay mu jox ma ab dog da nga def dog ba ba mujj dog bokk ca dagam ya dootoo ko génti ba ngay dee mais ragalal yàlla rek yàlla jox la xam-xam ak yëg moo tax yàlla wax ne in tattaqullaha yaj'al lakum furqaanan su ngeen ma ragalee ma jox leen leer gi teqale li xam xam ak xaqiiqi ak li xam xam ak majaasi yu ak li xam ak li wuti dog ba cey jele ak dog bay muju soppeku ab dak lu ko fi jar nekut fi ragalal yalla rek jamono ji nak lo bari bari xam-xam taxamoo dara bu ñi lim ñi gëna bon boole la ca parce que haduna ñaari tank lay mo war lon bukki sax biñ nako demal set ki gëna bon ci nit ñi dafa set ki gëna ñak mu ne ki gëna bon ci nit ñi lutax mu ne ta maye saraxé man ta dimbalé ku ko lebal ñek du ko fay mu ne ki gëna bon ci nit ñi moo waral kon àdduna ñaari tànk la tànkab am am ak tànkab xam-xam am am boobu di wërsëg nag ragal yàlla rek koy joxe yàlla nee na bu ngeen ma ragalee ma jox leen wërsëg ndax nit ñi ñaari xaaj lañ am na ñu bëgg a dégg xaala laahu mais am na ñu bëgg a dégg xaala am yóbbu ca kër ga loo leen wax xaala laahu lu mu bëri bari te dégguñ am yóbbu ca kër ga rek bu yàggee ñi gémmantu xaala am yóbbu ca kër ko di wërsëg nag ragal yàllaa koy joxe du ca yem mais boo ragalee yàlla xiinu gàcce xiin du taw yàllaa koy mujj naxasaayal moo tax mu ne wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxrajan lu ca tegu mu ne wa yarsuquhu min haythu laa yaxtasib képp ku ma ragal xat-xat boo nekk danaa la ca génne du ma ca yem danaa la may wërsëgal la te boo deexee du ma la régler xalal ak wërsëg nag duñ benn yàlla wërsëg lañu dëxal ci ragal mais dëxalut ñi ci alal alal mooy li nga moom lépp wërsëg mooy li nga jariñoo sa kër gi nga tabax sa alal la waaye du sa wërsëg li ciy sa wërsëg mooy néeg bi nga néegoo rek bu la ak baalu la jàppee nga ne damaa bëgg a fanaan ci kaw ëllëg ma dëkk ci suuf dëkk ci néeg yële sa jaboot gee lay njëkk a jàppee dof dépense bi nga joxe sa alal la mais tib ya nga ca lekk mu rees moo ciy sa wërsëg su la ak baalu la jàppee nga ne comme maa joxe dépense bi lépp laay lekk sa biir bee la koy njëkk a xamal oto bi nga moom sa wërsëg la waaye sa alal la waaye li kii sa wërsëg mooy place bi nga ci toog waaye mënoo toog ci kanam toog ci gannaaw kon alal ak wërsëg duñ benn yàlla nag dëxalut ji alal ci ragal ko mais wërsëg la ñu dëxal ci ragal ko moo tax mu ne wa yarsuquhu min haythu laa yahtasib jamono jii nag soo amee xam-xam jàllar bi ku am wërsëg loo war a wuteeti xanaa wilaaya te moo waroon a jiitu lépp ndax coow lee fi bari nag waaye nit ñi hitte moo leen di dagale ku la hëpp hitte moo la hëpp nit xam-xam moo leen di nit ñi ku leen dagale di leen léebal ñi bala fi foog nga wax leen xam-xam bu wér waaye bu leen xam-xam téye wilaaya moo leen di defar boo xamee hitte xam xam nit ñi dañ ñëw toog waaye kenn du defar fañ tolloon daaw la ñuy toll ren fañ toll ren la tollu toll déwén wilaaya rek moo mën a defar nit ñi comme ni nubuwatu defaree woon njëlbeenu xeet wilaayatu moomu nag ragal yàllaa koy joxe ku ragal yàlla mu dëgg ci sa xol yàlla jox la wilaayatu moo tax ba gaayee fëgg seen dënd yi naan ñu ñooy wëliyu yàlla yi yàlla ne déedéet wa maa kaanu awliyaahu in awliyaahu illal nag soo ko amee am xam-xam am wërsëg dëkk boo dëkk mbaa réew mbaa gox yaa fay gën a bëri noonu ndax wërsëg bu doon jaay ak xam-xam ak wilaaya njëgg mooy bëri noonu moo tax wëliyu yàlla yi dañ leen nattoo bëri ay noon waaye seen yàpp ya dañ koo tooke ku leen laal alku wa man aadaahum kaana sari al aqab moom nag wilaayatu googu boo ko amee li koy xaar muy mucc ci say noon ak wërsëg woowu ak xam-xam boobu ragal yàlla ba tey boo ko defee yàlla xaar la ca yàlla nee na ku ma ragal maa lay xaar ba ku la songu daanu koo songu daan ko ku songante yow nga daan ko ñu ne ko bindal mu ne wa in tasbiroo wa tattaqu laa yadirkum kayduhum shay'an kon ragal yàlla moo lay xaar ci say noon ba ku la songu daanu koo songu daan ko ku songante yow tamit daanu ragal yàlla ngóob